ziar bi nga xam ne at mu jot bu ñuy waajal màggalu Kazu Rajab waa kër Serigne Modou Diop Massamba ñu koy amal ci ki nga xamante ni Cheikh Mohamed Fadal Mbacke moom la dëppee jëmm ju sell jooju di Serigne Modou Diop sàmba Mbacke ñoom njaboot gi nag ñëw nañ feddaliwaat kóllëre gi nga xam ne doxoon na ci diggante ñaari kilifa yooyu le mbooloo mu takk lool teewee ko ànd kook mbooleem kilifa yi nga xamante nii ñu ngi bàyyi ko ci waa kër Serigne Modou Diop Massamba. day firnde rek ni seen diggante yàgg na jiitu na lii bëggee lu ko sëñ mat Jóob bi sëñ Fallu waral na ay turandoom yu bari waaye suñu borom ni ku nekk la mu bëgg la ko nekkoon yàlla doolu benn dund ci ba bii fi mujj sama xam dem na ba tool ci ma ko waaye suñu borom nga xam ne moom sëriñ Modou Massamba Mbacke Falilou mi nga xamante ni moom la Cheikh Mor Fadal Mbacke dëppee sëriñ Modou Diop Massamba moom rafetluwaat na bu baax a baax taxawaay bi nga xamante ni njaboot gi am nañ ko saasu ne ngir gën a feddaliwaat kóllëre waaye yeesalaat diggante bi nga xam ne moo doxoon ci diggante Cheikh Mor Fadal Mbacke ak sëriñ Modou ma sàmba yi fi xew bari na lool. ndax bi ñu koy sumb boobu sëriñ Saliou Mbacke ngi fi woon. xam nañu boobu jamono fi dal wala am na am daal fi jaar loo xam ne. te xam nañ ni jamono jooju ni mu neexe woon ak léegi daal xam nañ ne am na lu fi jaar loo xam ni. ay ay ndax daal jamono daal naq na jamono daal naqari na fi diggante booba ak léegi. naqari na naqari goo xamante ni soxna Mously Diop mi dafay jàmbaar rek waaye su doon keneen ba tey kenn waxatu ko. nee lépp rek ak sant yàlla la. nee ñaan a ànd bi gën a sax rek. sëriñ bi nag soññ na fa mbooloo mi soññee bu am solo waaye it sàkku ci ñoom ñu ñëw ànd ak moom màggal gi nga xamante ni mu ngi amal fii ci Ndaamaatu ak waxtaan yu am solo yoo xam ne dafa jëm ci wàllum xam-xam ci guddig màggal gi ginnaaw bi nag ci la daal di ñaanal ñi nga xam ne ñoo di mbooloo mi ci guddi gi nag am na yeneen kilifa yoo xam ne jot nañu faa ñëw daal di koy ziyaara bokk na ci sëriñ Abdou Lahad Mbacke Gaynde Fatma moom mu nekk wëlëre sëñ bi du lu yàgg mu ñëw yeesalaat wëlëre googu nga xam ne dox na ci seen diggante waaye ñu waxtaan fa waxtaan wu am solo boo xamante ni jëm na ci wàllum communication ak taxawaay boo xam ne kilifa yi war nañ koo am mu jëmee ci fànn googu. Cheikh Abdoulaye Mbacke Gaynde ma nag rafetluwaat bu baax a baax taxawaayub sëñ bi jëm ci xam-xam ak mbind mi nga xam ne saa su ne mi ngi koy def. moom it ginnaaw bi ko sëriñ bi ñaanale ci la fa keneen ñëw muy commandant jaata bi nga xam ne moo jiite poste de police bu yees bi nga xam ne moo nekk ci ndaamaatu moom it mu ñëw doon waxtaan ak sëñ bi ci dispositif bi nga xam ne moom lañ war a jël ci màggal Kazu Rajab gi ci mbooleem njabootug Cheikh Modou Fadel Mbacke gi mu ci doon waxtaan ak sëriñ bi ak éléments yi nga xam ne moom lañ fas ni indi ci kër gi.